ci am sa xar ni téye ko Twitter yi kii ni cagaa <laughs> yow su ko la baal naan lu sedd baaxul ci yow day day commencé la sa abi lal naa feebar loo si la ah, ah sañse fu ne lay di ba ci serveur bi abi sa serveur sax sañse la <laughs> eh, macha allah laf cat <laughs> Eh. abi boo defee noonu di nga mën a ki ma defee ginnaaw ko war a wan kanam xaw ma kii bi robinet bi wala garaawul <laughs> ah tey kat daa ngelaw moo tax dafa féex waa dafa féex trop eh. yow laay wax dégloo lay boo ak abi buy sangu bi dama loo gis nag wax ma dégg nga loolu baax wax ma dégg loo gis rek nett li ma ko dégg <laughs> abi mooy sang sangaaleel ma kii waaye cukkuri xam nga xale la xamul dara. cukkuri waa. man ak moom ñooy bokk sangu wala maa koy sangu. bokk leen sangu rek. loolu non loolu dafa garaaw bokk sangu du dara. Eh, cukkuri àndal ak sa tànn abi dégg ah cukkuri day ànd eh, ak sa tànn abi yaa bañ mu naa ma on oh, oh. voilà wala rappelle-moi yi kan moo am rappelle-moi allo salaamaaleykum maaleykum salaam kooku non damaa gis nga envoyé ma rappelle-moi kookal la non yow wax ma sa tur looy laaj sama tur yaa ma envoyé rappelle-moi mu leen bàyyi bu leen nit wooyee ngeen ne ko kooku te yéen yéen a koy rappelle-moi nga ne non non non non man bàyyi naa lo léegi léegi ay Facebook ak yooyu ku bëgg daal xar mi nga ñëw mais di ma woo di ma woo ay rappellement ak di ma foyee kooku yooyu laa nekkul kuy jënd nga ñëw un point c'est na maa ngi ñëw sangul xaar ma mu ne day sangu noonu day yomb sax yow yaa yéen déglu war eh. naa saw nga may yéem. pervers nga naan yow de yow. yow boo ma soxlaa doo ñëw jarul may saw nga may yéem. kan moo ma soxlaa yaay. yow nga xamante ne yaa raw galaas. Ah! Ah! <laughs> eh yow yaay kii hmm. nopp. yaa ñaaw yaa ñàkk fayda amul loolu yaa <laughs> waaye taayee bee. loolu nag gis nga noonu la ma bettee nag. parce que xam dinañ juboo ndaxte kii nit da lay sori ndekete yaay njaay li muy tuut tuut tuut tuut xol bu rafet la yor <laughs> laa gis nga ni muy reen ni ba ñuy weexee noonu la. suñu yaa jaw xamoon ne c'est que damaa xam ni. li ma nekkoon ci kër gi di ko toroxal ak lu ne ma dugg ci ndekete li muy tuut xol bee rafet. Ah. jubóo nañu. xamandoo dégg rek dégg yow amoo looy wax waxal jékki-jékki ñëw di ko laaj question ba retrouvé ne xol bu rafet na loola. ñoo tey bëri nga de. ah waaw maa waxoo ma dara yow. ah déedéet du la dara abi gis nga nee na bi mu dugg see après nag ci la. tegal noonu rek ñu dugg si biir. wala mayel abi mu sol yi la. de pour. moo yaay. Njaay. soo ñu waxtaan nga bàyyi abi solu. solu góor jigéen ak jigéen baaxul de bu ngeen xoolante ay awra noonu baaxul ci yéen de. yaa Njaay. <laughs> waaw jëlal <laughs> ñu ne ñu attaaye tàng na de waxtaan ci lu ngeen ñëw ñu waxtaane ko fii <laughs> déggatuma leen de yaa njaay dee a ah, yaa ngi ree baax na am problème yaa njaay julit ak moroom yaay bul topp kenn du top morom moom di ko yaay njaay du ngeen wax ci kaw ah yéen a tam damaa caga trop ku ci am sa xar nit